seen mbokk maam Gor Ndiaye Abou Ibrahim jiite lajnatu taraayil hilaal bi topp ci tansiqitu muslimi Sénégal di ko wax coordination musulman de Sénégal ñooy yëgle lii ñuy bëgg a wax ci taxawaay bi ñu am ci weer wi mooy ñaari fukki fan ak juróom-ñeent yu ne dañuy daje ca siège social ba ca buntu Pikine séentu jokkoog sunuy représentant ci fukki gox ak ñett ci biir réew mi yàlla dogal nag seenub tay bi seentub tay bi daa dajeeg li ñuy wax covid 19 ñu liggéey en distance ku ne toog ci bureau di liggéey maa ngi ni toog sama bureau di liggéey bi nu boolee li nu am ci xibaar am nañ xibaar yi ñu leen di bëgg a wax ci réewum Côte weer wa feeñ na fa ci ñeenti dëkk ci réewum somali weer wi feeñ na fa ci réewum Mali bii ne ci sunu penku weer wi feeñ na fa ci réewum Niger weer wi feeñ na fa fii ci Kaolack ci senegal ci ñaari bërëb weer wi feeñ na fa feeñ goo xam ne li ñuy wax jamaatul mustafida moo ko am ku ñuy wax Saïd Lamine drame gi ab sëriñ daara ca Kaolack te ñu wóolu ñu leen xam sëriñ Ibrahima Cissé xam na leen sëriñ Abdallah Ndaw di rakku imaam Aliou Ndaw xam na ko imaam Aliou Ndaw xam na ko ñu bokk benn groupe groupe imaam ñoom ñëpp jokkoo na ak ñoom ngir feddali ko xibaar bi ngir ñàkk gi ma ñàkk xam Seydi Lamine Dramé te xibaarub lislaam noonu lañ koy def loo xamul dangay laaj na ko xam ñoom ñëpp genn kàddu lañ ma wax mooy xam nañ Seydi Lamine Dramé xam gu wóor xam nañ ne du joxe xibaar ci caaxaan Seydi Lamine Dramé moomu nee na doomam di taawam di Mouhamad Lamine Dramé am euh, ñaar fukki juróom gis na ko Alaaji Géey di jàngalekat ca daara ji gis na ko Abdallah Dramé gis ko Aboubacar Dramé gis ko Tabara gis ko Maam Saïd gis ko naka noonu gis nañ ko ci yeneen i gox ci Kaolack naka noonu ku ñuy wax ay dara Ndong dëkk Falia ci commune Dionewar ci région de Fatick nee na magam ji nga xam ne benn tofoo dox seen diggante nekkoon ci euh, di navigateur nekkoon ci géej gi moo ko woo ci booru trois heures comme quatre ci booru cinq ne ko gis nañ weer wi gis gu matale goo xam ne mboŋ mbooloo mi doon ne ci bato bi ñoo ko gis ci biir loolu li sharia santaane muy suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi gis nañu ko dañuy dog weeru kor jeex na suba la benn fan ci weeru korite lii mooy xibaar bi jóge ci lajnatu taraa'il hilaal ñu ngi ñaan képp ku jot ci xibaar bi te mën koo jàllale mu jalale ko incha allah taala am na kuy def communication bi ci français hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain